ti naa ak loo mënti déggit bu dee coow ci réewum Sénégal ab natt la day turbine yéen kaay naan man jàppal général Kandi kenn ëpp ko ci teggi bi coow li ca affectation la ca Inde comme attaché militaire yéen kaay des médias bi naan man lañ bët nañ xam nan nag daanaka la nga xam ne moom moo koy indi moom général Kandé nag nee na wuy jiwul tey wuy jiwul ëllëg di xam le ni ordre yi nga xam ne Ousmane ko joxe na ko ci ndoddam moom général bi moo lank bayul ku ko lankale yéen kaayib dee média bi naa ma jàppal moom am ci boppam dafa bëggoon ne téppateegoo militaire yi am diggante Sénégal ak États-Unis Canada Royaume-Uni ak France autorité yu bees yi bëggoon jënd système de coup de masse ak système d'espionnage Pegasus bi bul sukkandikoo nag ci ay xibaaru Afrique confidentielle point com système boobee nga xam ne dina mën a tax nga déglu bépp application di whatsapp telegram signal wiir ak bépp boo xam ne ab sénégalais ma ngi koy jëfandikoo le quotidien le quotidien naan kon coow la coow la moom moo di affectation générale bi loxol Ousmane Sonko daal génnu ci l'info naan kon kaay ma xamal lan nag lan moo waral lii moom général bi ci boppam dañoo njortu ne dafa jege woon lool régime bi fi nekkoon doon leen jàppale nag ci intervention force spéciale bi ci saa bu manifester amoon ci réewum Sénégal lan moo ko yàqal waaye yéeni kaay bi naan man attention de décret bii nga xam ne mooy tax général ci boppam bàyyeekoo Sénégal dem New Delhi président Macky Sall la woon de ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars 2024 ca lan taxawal nag mission militaire permanente ci ambassade yi jébbal ko officier général wala supérieur bu forces armées loolee nag ñu duppee ko attaché de défense et de sécurité te attaché de défense ak sécurité boobee buñ la ko tabbee da amande niki noonu matériel ak koppar ga ànd ak yow moom général bi nag niki ab sanction wala it ab toroxal la ko jàppee le peuple quotidien naan man déet ab règlement de compte kay moo ca am 24 heures yéene kon attention de loo ci manti déggi décret baa nga bàyyee koo woon ci loxol Sall ngaari lam tooro Bourguédé moom président Macky Sall moo fi taxawal bi le poste moo ko créé jaarale ko cib décret bés bi le jour nan kon xanaa kay président Diomaye def ca la ngaamu rek waaye coow li coow li kay Sall xamante ne bi daal dinay andi dëgg-dëgg ab naa attaqué bi mën naa jaagar jaagar rek décret bi ba ca bu kawe bu jàppee ni dafa illégal 24 heures naan maan jàpp leen niit lu ci mënti am moom président Macky Sall daal moo ko affecté lu ndax décret ba taxawal lii Sall booba turbine yéene kaayub des média bi naan maan police soppi nan ab njiit maam Seydou Ndour léegi mooy directeur général bu police nationale commissaire yàgg daal di ko fay jëlee yéene kaay bi naan maan am na ci généraux yoo xam ne daal teg nañ leen ci banc touche bi bu yéene kaayib dee média bi naan kañ lañuy ñuy defi assise ci wàññi dund gi l'enquête naan kon geeruk jën yi moom faaw mu am ci réew mi diggante union européenne ak état bu sénégal Walf Quotidien naan kon moom Ousmane Sonko it am na génn yéene mooy dar dardari wër ñeen fukk ak juróomi milliards yi nga xam ne contrat ma la woon ministère de l'environnement ñu defoon ko fa France daal di xidéem coow coow bàyyi Ousmane Sonko ne leen goxi ñeen fukk ak juróomi milliards yooyee dina teguwaat ci loxol nguuruk Sénégal ñu xool net ci doxalee ko mënti jël waajalal sa bopp réew mi ko dajee naan kon xeex gi nii xeex daggum garab gi ci réewum Sénégal te boobaak léegi France moom Ousmane Sonko dar na leen ni dar man ko Sonko fas yéene song direction des eaux et forêts ngir nag daggum garab wàññeeku wala ñu teg ko ci yoon ci réewum Sénégal Le Soleil yéene kay naan man boobu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma nga naan senegal yi benn fan ci weeru juin génn leen ñu setal sunum réew mobilisation générale la li mooy ndax réew mi neex naa defar libération yéene kaay agent yoo xam ne ñi ngi tey jii ci fonction publique bi ca atub 2018 ñaari yoon la ñuy fayeeku agent yoo xam ne bu ñu leen fayee virement bancaire ba nuppi dañuy dem fayeeku lu ñu toll ci billetage chaque fin du mois nag ma ne la ñaari yoon la ñuy am salaire ci réew mi ci benn agent bu ne cour des comptes nee na leen nii ne leen xam ngeen li ngeen def yéen a ko tey amu leen droit am ñaari salaire ci réew mi goqi fay leen laas yéen kaay naan man ca Sonacos nag directeur général ba woon Kabili Touré géwalu juddoom la doon fay benn million ak téeméeri junni weer wu yàlla sàkk source a naan maan boobu APR kër président Macky Sall ma ngay jax-jaxi di tàkk yéene kaay bi naan maan dara taalu ko nag lu dul diggam ak Ba nga xam ni ñagas na ban cay wax roñ-roñi génn waaye bari na ci kàngam ci biir APR yoo xam ne ma ni la taxaw seetaan kay croiser les bras la ñu def jàpp ne kon dañuy xool doxalinu Sall ba jamono neex barki boo Njaay woote nañ fi ab tournée boo xam ne boole boolewaat xol yi la waaye nattaat seen doole ci réew mi France échec la ndax ñu bëri ci ñoom nanguwun caa bokk seen njort mooy président Macky Sall daf leen sacrifié fa yàllaahu te sacrifice bi nag mi ngi am ci élection présidentielle 2024 bi ñoom ñoo ñee di waay fipp ci biir APR ña ngay jay-jayee ka say ci kaw président Macky Sall naan kon ñibbisil ci réew mi lijjanti lii la xool yow Sall li nga def ci réew mi waaye tam seen nërmeelu gi ci élection présidentielle gi yow ci boppam nga lijjantil ko sa bopp waaye fipp APR yi naan moom président Macky Sall ma ngay juum bu jàppee na Karim may sa wàdd ma toog bitim réew muy dox mën na nguufaan ci moom ñaabar ñaabaree loxol Karim forcé ko Sénégal sénégalais yi waaye tam forcé ko waa parteem ñoom ñoo bañ léppooy ak ci naan kon moo am de responsable ya bank nañ seen loxo dara naqariwu leen nag lu dul Amadou Mame Diop ak Abdoulaye Daouda mi nga xam ne ñoom la sàll jël jiital gannaaw Kaolack ak Diourbel Kolda moom boo moytul buñ fa yeggee ci seen mobilisation bi bi balde du teew ay DG ak i maire à Paris ñoo xam ne ma ne la ñi ngi ciy poste fi mu toll nii ñi ngi làqu nii mbóot nangu ñu génn balaa ñu leen di xàmmee dàq kay yéen bi naan ci biir ne gaayu Abdoulaye Daouda Diallo yi ak gaayu Amadou Mame Diop ku ne ngay xëccoo ngir parti bi tegu sab loxo deux minutes pour lire l'essentiel naan maan daanaka bi yëngu-yëngu am na ci biir média bi ci réewum Sénégal diggante 7TV ak des médias nga xam ne ay milliards lañ leen yóbbante galgal ngir ñu fay seen TV moom diggante juróom-ñeenti téeméer juróom benn fukk ak benn ci ay millions yu TVA ci waxtu woo xam ne la ñuy def ci chiffre d'affaires matul benn milliard Walf naan maan moo taxit diggante fisc ak inspection du travail yi nga xam ne ñu ngi CDEPS ma ngi cay interpellé président Diomaye Sud Quotidien naan maan ci wàllu njàng meeg njàngale mi l'école bi dee ngi sëngéem ba mar day taali donte nag diggante président Wade ak président Macky Sall def nañ cay jéego waaye dafa mel ni njàngaleem réewum Sénégal na mu meloon wunni na seen jéego yooyee taxul ba tey la tax ñuy wax njàngum Sénégal nekk ca jàngalekat yi ci accord yoo xam ne nee ñu duñ ko respecté professeur yuy manqué daanaka li yàq système éducatif réewum Sénégal mi ngi fi tey nag autorité yi yees yi wara a yooyu le défi yéeni kaay bi naan man xanaa am yaakaar rek ci jub-jubal ak jubbanti bi nga xam ni président Diomaye woote na ko ñu jaare ca nag mën a joyanti réewum Sénégal turbine naan kon en tout cas Sénégal ma nga fës yéene ñaabar ñaabari jëm Portugal moom président Amadou Diagne Foceka moo ko fay yóbbu ñetteelu forum Afrique Portugal lay waajal dem na ba ci ministre des affaires étrangères bu Guinée ne moom Amadou Diagne jébbal ko invitation yéen kaayib des média bi naan man beneen invitation bu góorgóorlu am te am ko seen digganteek tabaski te du jaas mi ngi waaye bu ñu lambee xar ñu naan leen diggante ñeen ju junneeg ñaari million moo ne day gouvernement bi jébbal na jaaykatu xar yi loo xam ne mënees na caa jaare wàññi njëkki waaye France gaayaan ca solu xale yi fàtte la ko jiitu nag moom moo di xar mi ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yandoog jàmm